jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu leen di nuyu yéen sunu mbokk auditeurs yi ak euh, sunu mbokk auditrices yi mbokk yi ñu dellu euh, am mbégte dellu si waat seen émission pencum réew mi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi. mbokki nag tey émission bi euh, ñu koy defee nag euh, fii ci Touba fii ci dëkk bu sell bi euh, tey nag mbokk yi ñu daal di invité bintu Diop Bintou Diop nag di responsable politique APR dëkk fii ci Touba waaye mu jiitee jigéen ñi nga xam ne tey ñoo bokk ci parti bii di euh, APR te dëkk fii ci Touba maanaam mooy euh, coordinatrice féminine euh, jeunesse féminine républicaine ba pare tamit charge de mission la ci ministère bi ñu dénk wàllum famille wàllum njaboot gi te Fatou Diané jiite ko Bintu maa ngi nuyu. maa ngi lay fay Jëli Baxdaad di nuyu mbokki auditeurs ak auditrices yi ko. bon Rewmi FM di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di la wax merci ci invitation bi man la Bintou Diop coordonnatrice jeunesse féminine Benno Bokk Yaakaar en même temps chargée de mission à la ministère de la femme comme ni nga ko waxee ci présentation bi présidente tamit conseil communal de la jeunesse commission féminine bi. Hmm. nekk tamit responsable politique APR fii ci commune Touba. waaw yow nga nekk responsable fii ci euh, commune bu euh, Touba. Euh, nañu commencé ci euh, Touba gi ak politique gu Touba ak euh, niñ fi teree lu jëm ci wàllum politique est-ce que seen carrière politique mënuñoo wax ne jeex na Bintu. waaw ji li loolu dañ ciy sant Serigne Mountakha bashir rek ndax ñun ay taalibe Serigne Touba lañ te kun dangaa ci sa dëkku maam ñëw ci sa ñëw ci dëkku maamam muy Serigne Mountakha Mbacké di ko wax ne ko ñun ay taalibe lañ lépp lu mu joxoñ rek waxoo waaye bala mu koo tudd sax ñu ngi ci indigal loolu. naam dégg nañ sëriñ bi fan yi mu ne lépp lu yëngu-yëngu politique aay na ko ci dëkk bi loolu nag ma jàpp ne ñun politiciens yi ñoo wax ci war a jiitu gën a defaraat suñu toogin nekk ci ndigalul ndigalul sëñ bi loolu moom duñu def lu di ko saluer aussi tamit di ko di ko di ko di ko rafetlu non ñun man musuma dégg fa sëriñ bi tere politique xëy na nag sëriñ bi yàgg na tere yëngu-yëngu politique. xëy na ay seen ñoom. non man mosuma gis fu sëriñ bi tale ay mitin ak yooyu. soo ko amee indi ma ko ci Touba. man li ma daan gis daal lépp mitin si lépp non xam nga mitin amul Touba parce que mitin fii Touba kenn du fi teg ay rajo di teg ay musique wala ngay def leneen jàppoon naa ne daal sëriñ bi defoon na déclaration ne lépp luy yëngu-yëngu. ci loo xumba jëm ci ay loo xam ne day indi bruit nañu wormaal lépp lu jëm ci côté jumaa ji te loolu jàpp naa ni Euh, ñëpp ñu politique ñëpp ko respecté woon lu waaye mën na takk sa rajo donte ay xasida nga ciy tegit soo yegsee ba ci côté jumaa jet di nga wàññi sa rajo boo jëlee sa oto tamit def ci afisit boo ñëwee ba li wër jumaa jet di nga ko wormaal ba ba ba teggi ko mais mosuma dégg fu sëriñ bi ne nañu aaye yëngu-yëngu politique wala mitin parce que meeting moom ji li wax daal franchement parler amul Touba dajee fi nekk réunion fekk maire yi def seen avec wala def seen natt nga ñëw yëkkati sa asaka yéene jox leen ko waxtaan ak ñoom ci sa candidat pour mën leen convaincre. loolu nag so waaye kuy meeting moom jàpp naa da ngay dem ba boulevard bu Mbàkke. waaw mais euh, Bintu fi mu nii euh, yéen a ngi def ay réunion euh, ci seen biir kër yi wala ci seen quartier yi jëm ci wàllum politique wala. non non xam nga ji li bi sëriñ ba léegi. ah man de parti bi ma féete laa xam gisuma benn organisation politique bu nga xam ne si ne peut-être mas nañ ko organiser nañ ko depuis bi sëriñ bi waxee loolu moo xam réunion la wala daje mën nañu waxtaan nag parce que léegi technologie bi dafa dafa dafa dafa avancé ni ñi mën ngeen a waxtaan réunion en ligne mën ngeen a waxtaan ci ci whatsapp bi ak yooyu mais benn organisation politique boo xam ni diir bi sëriñ bi bu aayee ba léegi parti APR bi ñu bokk ñoo ko fi def gisuma ko te bu amoon dinaa ko yëg parce que bu amoon dinaa bokk ci ñu ñuy su ma nekkul première dinaa bokk ci dix première bëgguma fi organisation boobu franchement parlant. Euh, yéen ñi nga xam ne yéen ay euh, APR nekk fii ci euh, Touba ak ñàkk ànd dafay dox ci seen diggante saa su nekk ba nga xam ne tey li leen di yàqal ci wàllum politique lu bari foofu lay jógee ban gis-gis nga ci am. jéeli fii gisoo fi benn parti bu ànd ndegam opposition yi ñoo àndul et sama la parti pouvoir. politique ay contexte la. waaw ah, Pastef moom ànd nañ non non non ñu ànduñu non Pastef ànduñu. Touba fii Pastef ànduñu non non Pastef ànduñu boo leen gisee ñuy dem nag wala ñu bokk toog war nga mën nga xalaat ne ànduñ ànd nañ mais fii parti opposition ànduñu ba parti au pouvoir di ànd parce que yaakaar naa parti au pouvoir moo ëpp ay privilèges kon fii benn parti boo ànd amu fi mais bu ñu nekkee ci ay contexte tamit teewul. bul contesté wu laajee ñu war a ànd booloo doon benn ci essiance yi ñu jëm dañuy ànd doon booloo doon benn pour suñu intérêt bañ a nekk suñu intérêt personnel dafa mu nekk intérêt commun mais benn partie bu fi ànd moom gisuma ko fi. mais rawatina yéen moom euh, waxuma la euh, pëccoxo wala sabar gu tas moo am ci APR Touba. non non bul wax euh, pëccoxo wala sabar gu tas sama biir wax dama ne la parti au pouvoir toujours ay waxam dañ nit ñi dañ koy gën a bàyyi xel ak buruweem ak yooyu mais fii parti yëpp am problème ñëpp am problème kër yi nga dëkk kër yi ñu sax dafa am problème rawatina parti au politique nga xam ne ku ci nekk da nga ñëw déplacé wu ku ci nekk di défendre say intérêt. Euh, jërëjëf euh, Bintou Diop yow nga nekk responsable politique euh, APR léegi yéen. Euh, nee nga parti yëpp euh, am problème nee sax kër yi euh, dafa am problème man gis naa ne yéen waa APR am ngeen jafe-jafe am ngeen problème da ngeen amul ab leader boo xam ne tey bu am charisme la boo xam ne mën na dajale yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci APR maanaam ngeen def ko ngeen def ko njiit da ngeen ko amul wala wala lu xew. nga parti APR moom yàlla dogal na ni benn chef de parti lañu am muy son excellence président de la république. partie boo xam ne kii ñu ko am instructeur wuñ ko mën nañu partie boobu xëy na du am leader mais ci ñàkk ñàkk leader googu teewu tamit ñun waa APR suñu bëggee dajee wala ñu bëgg waxtaan ñun ñëpp ñu parti bi ñoom ñëpp dinañ dajaloo ñu toog waxtaan waxtaanu jëmal parti bi kanam kon gëm naa ni jafe yi nit ñi wax naan waa APR ànduñu waa APR dañuy am jafe-jafe dañuy xuloo loolu jàpp naa nit ñi ñoo ko jël teg ko ci seen kanam di ko xool mais ñun vraiment dëgg yàlla amuñu problème. lan ngeen am problème pour gagner. noo ji li xam nga élection moom dangay def li la war def li la war mooy paasewul nga opté politique pour dumbali sa population li nga am ak ko si nga wàccee ko ci sa population parce que boo xoolee activité sociale yi fi jaar yépp parti benn Bokk Yaakaar parti APR fii ci Touba ñoo ko fiy def ñooy dem ci mbënd mi ñooy def acte social ñoo mën ci faj ñoo mën ci leneen élection nag dafa sacré. ci xaalisu réew mi. non non bu dee ci xam nga bu dee même bu dee ci xaalisu réew mi tamit. ñu ngi koy wàcc di ko jox waa réew ma ak askan wi ko moom dama la xamal ne lépp lu ñu war a def ñu ngi koy def mais élection dafa secret li la war mooy nga dem dagaan baatu askan wi def li la def li la war nit ki nag libre na bu su wootee jotee mu voteel ki ko neex mu ànd ku ko neex non du question ñàkk wóolu dama nit ki libre na su élection jotee mu dem voteel ku la neex nga dem vote teewul ñooy bokkaat dëkk ci dëkk bi teewul ñooy àndaat ñooy yëkkatee doo ñooy doon ndax li ñu bokk mooy Serigne Touba te mënuñu ko mënuñu ko mënuñu koo séddoo mais li ñu war ñun ñu ngi koy def du suñu yaafus moo ñu tax a perte du suñu kuwaay di moo ñu tax a perte lépp lu ñu war a def ñu ngi ko fiy def population bi nag li tax ñuy votel beneen camp loolu moom seen problème la mais ñun jàpp nañ ne li ñu war a def lépp ñu ngi koy def. Euh, Bintu euh, exactement lan nga jàpp ne moo tax waa tuuba wala ñu ëpp si ñoom euh, ànduñoo ak yéen ci wàllum politique. xam nga ji li Touba am réew la bu ma déggee ñu naan li ëpp ci yéen waa Touba wala. wax toxaatu du ngeen gagné parfois ay dafa may jàpp parce que Touba gi électoral bi fi nekk te président Macky di ko fi am am na dëkk yoo xam te président Macky Sall ngi koy gagné largement te voix yi am Touba amu ko ci dëkk boobu Touba nag mooy nekk dëkk boo xam ne si ne am am am am am réew la mën ngaa dem élection perte ko mais man mën nga cee am ay voix yoo xam ne si ne tey ji par exemple tey yeneen dëkk yi ngay dem tey ji ñuy ndamoo ne dañoo gagné tey ji buñ ko dugaloon ci électoral Touba Daaru Xudus bi sax moo leen moo leen moo leen ëpp mais li ëpp solo rek mooy le président Macky Sall xeebul li nga xam ne am na ko fi xeebul électoral bi nga xam si ne am na ko fi te aussi lu mu bàyyi xel la loo xam ne si jàpp na ni mën moom jàpp na ni lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy jariñ la parce que élection 2019 ñu ngi doon xaar 3 3 pour cent pour président du dem deuxième tour Touba ñëw ak 6 pour cent kon loolu yaakaar naa ne président Macky Sall électoral Touba mu bàyyi xel la. nit ñi nag nit xam nga du ngeen gañe moom yàllaa ko yor ndam yàllaa ko yor ñun li ñu war a def rek mooy dagaan baatu askan wi def li ñu war a def le reste ñu bàyyeeg yàlla suñu borom mais en tout cas électoral bi ñu fi am ñun ñu ko dinañ gën a def le tout nag bu leneen lu ñu ci mën a yokk ñu yokk ko ci parce que politique xamul moyen plus la xam. mais yéen dañ leen di joxul ay moyens yu ngeen politiquer wala wala lu xew. waa xam nga. Euh, dëkk bu mel ne Touba tey. wala nomination moo amul. non xam nga dëkk bu mel ne tuubaa tey li ma wax ci biir dëkk bi li ma wax ne Touba tey du ab dëkk am réew la tey soo bëggee jël dëkk bu mel ne Touba tey nga bëgg koo boole beneen dëkk yaakaar naa jafe-jafe la parce que Touba bu ñu ko waxantee ji li yax na am ay poste de responsabilité naam sax mën naa ni amagu ko ndax diir bi président déparé ba léegi mosuñu am ministre. yaakaar naa ñi ngi doog a am ministre te ministre bi sax dëkkul Touba département Mbacké la dëkk muy le ministre Galaba di ko jëfal ci euh, ndomb ak tànk koobu mais tey dëkk bu mel ne Touba te war naa am ay PCA war naa am ay ministre war naa am ay directeur parce que dafa am loo xam ne si ne tamit su amee ci am ab dëkk dina bari yoo xam ne si ne peut-être dana mën a danañ mën a ay fatt ay buntu wala danañ mën a gën a jàppale askan wi comme ni ñu ko doon defee te du yegsi ci son excellence loolu nag ñuy lancé président Macky Sall bii mu jëm mu gën cee bàyyi xel waa Touba xam ni ñu am dayoo fi nekk ñu ko bëgg a jàppalee fi nekk mais nag vraiment ci côté poste responsabilité yi moom vraiment des na lu baree baree baree baree bari. mais yéen est que jotul ngeen bàyyi président Macky Sall complètement ndax 2012 ba nguur gi jeex amu leen ay poste de responsabilité yu yu tax ñuy wax seen yaakaar tasul. noo xam nga jili ku mel ni man ak ñi ma ñi ma jàpp ne taxawaay bi ma am lañu am bi ñu ànd ak président Macky Sall ay poste responsabilité taxutoon naam nag bu ñu ko joxee ñu jël bi ñuy ànd ak président Macky Sall dañoo xam fi Sénégal nekk ñu bëggoon ko ko changer te tey jii yaakaar naa étendre nañ suñu objectif parce que président Macky Sall fu mu fekkoon Sénégal ak fi mu ko jëlee. yaakaar naa ni loolu lañ loolu lañu ci doon sàkk moo taxoon ñu takk laxasaay jàpp na kii mën naa xar soppi xar kanamu Sénégal kii war naa mën a soppi xar kanamu dëkk bi ñu dëkk te président Macky Sall lu waaye bañ bañ bañ bañ xam ne am na bilan soppi na xar kanamu Sénégal loolu moo taxoon ñu ànd ak président Macky Sall mais du ay post responsabilité du ay nomination ba tax ñu war a mën a génn ci parti bi dem def koon dafay mel ne ñun suñu bopp moo ñor dafay mel ne Sénégal ñoruñu loolu nag naam def na ko. mais bu ñu joxee ay poste responsabilité jox ñu ay poste nomination dina tax ñu gën a taxawaay dëgëral suñu taxawaay mais gëm naa ni mën na maa wax mën na maa waxalal sama bopp du ay poste responsabilité mooy tax ñu wax président Macky Sall ginnaaw mu defar Sénégal moo tax ñu ñu ànd ak moom te loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax waaw euh, parti bu mel ni Pastef ne nii ci Touba ci département bu Mbacké du ñu wax ci au niveau national sax mais ñu wax ci au niveau département de Mbacké gis nañ Pastef euh, taxawaay bi mu am ci Touba xale yu bare bare bare koo wax mu ne la Ousmane sonk loolu moom ndax euh, nemmeeku nga ko Bintu. xam nga ji Touba moom. nañ ma Touba moom na yàlla baal Touba moom tey boo woon jii jiili bax daal dafa njool. charette yeeg tataay yeeg ñoom ñëpp moom la ñuy waxtaane tey ñooñu nga xam si ne tey jii xale yooyu ngay wax ndokk bi nga insisté sax si xale yi xale yooyu tey ngay wax naan foo toll ñu ngi naan Pastef ñu ngi naan Pastef bari na ci xale yi too xam ne koy koo ci laajoon amul kayitu juddu bay am bay bay bay bay bay bay bay bay am bay am carte mag ñooñu tey jii mag ñooñu tey jii bari na ci mag ñoo xam tey jii li tax maanaam Ousmane Sonko doon dara ñoom tey boole nga laajee amuñu ko xam nga nag ñoo xam nga dëkk lu baree bari Touba moom xam nga ne lépp lu waaye di riiral wala moom boo ko fa xasee ba indi ko xool ko kenn xasee ba ci saret yi la ñuy yëg di ko waxtaane ci jàpp naa ne am riir la moo xam ne si ne day day day nekk ci seen biir di kasaw kasaw mais jàpp ma ne lu am importance la. waaw mais Bintou est-ce que jotul aussi ngeen respecté euh, nit ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci dëkk bi ànd ak euh, Ousmane Sonko nga bëgg leen a tuddee ñoo xam ne am riir la xanaa kon riir moom moo am dakaar am feneen ak feneen ci biir Sénégal. dama ne la Euh, ñàkkuma leen a respecté parce que li ma wax sama biir wax sànq li ñu bokk mënuñu ko seddoo muy Serigne Touba ndax lu mu mën di man rek muy Macky muy Sonko ñun Touba la am moo ñu moo ñu moo ñu ñor mais nag soo ma laajee dinaa wax sama xalaat parce que damay jaxasoo ak ñoom am naa ci ay xarit am naa ci ñoo xam dama leen di fekk ci garam place ñu toog may waxtaan ak ñoom mais dañuy waxtaan ak par exemple na la waa Bintou Diop nu ñuy def ba am carte d'identité Bintou Diop nu ñuy def ba am kayit ñun de dañuy wax loolu tamit soo ma laajee dinaa ci wax sama xalaat loolu rek la bindu élection locale dafay jaar Ousmane Sonko ak ñi mu àndal yeewi gañe commune bi gagné département bi élection législative ñëw ñoom ñu ànd ak waa Wallu gañewaat commune bi gagné département bi loolu nag est-ce que du firnde ne Ousmane Sonko am na ñu ko fi euh, taxawal si ci dëkk bi. xam nga jiiri baax diir bi ñu nekkee Touba diir bi ñu demee dem élection ba ñu xàmmee ñun politique ba léegi. Ablaye Wade mooy kii gañe Touba kon yaakaar naa yeewi su àndeek wàllu man gëw ma ne nga ñaan élection locale yi gëw ma ni yeewi non non législatif yi ci laa lay tontu ba pare ñëw si local tontu ma si yi ku ne xam na ni jëf yi gis nga ni mu demee aussi ñu ci sant yàlla nag parce que élection yoo xam ne élection nañ ko une semaine presque cinq jours yoo xam ne mënuñoo joxe ay résultats yu leer parce que xamuñu fi ngañaay li féete loolu fierté la aussi tamit non non noo xam fierté la aussi ñuy félicité tamit suñu candidat bi ñu amoon ci conseil ci ci ci ci élection locale yi parce que jàpp naa ne fii élection heure bi fi masaana am bu ñu élection bu 19 heures bu ñu tëjee loolu 8 heures soo xëyee di nga xam ki gagné te bi ñu tabee Matar Diop yaakaar naa. Oh, élection non non non non ci bis ba nit ñi xamuñu ko. parce que man non non non doon naa dem tribunal bu Mbàkke. non non dem tribunal. non non xanaa ruubee leen neex. non doon nañ dem tribunal bu Mbàkke yëf yi seera woon na xatoon na trop. xëy na nag ndam li foofu la ko suñu borom tudde woon ñoom ñoo gagné élection législative yi ngay wax tamit man nanguwuma ni Pastef ñoo gañe parce que fii ku ne xam na ne 2012 ba élection des départs ba léegi Ablaye Wade mooy kiy gañe Touba te bu leen fàtte ne li Cheikh Bara Dolly wax barki démb bu leen fàtte dañoo àndoon ak wàllu lan moo leen wàll ne lan moo leen wàll moo leen sauvé ba ñu gañe Touba. d'accord léegi Bintu Bintu ñun tépp élection fi la ñu fekk gis nga élection locale Bintu élection locale yéen bi ngeen ne campagne yéen ak ñoom Matar Diop. da ngeen doon campagne ci turu président Macky Sall ak bilan bi mu def ci commune bi ak ci département bi ñi nga xam ne ñoo àndoon ak walloo ñoom Cheikh baara Dolly boobu ma ngi ci biir PDS boobu Ablaye Wade la doon campagne ak Karim Wade ñi nga xam ne ñoo nekk yeewi ñoom sëñ Fallou Mbacke àndoon ak Ousmane Sonko presque Ousmane Sonko lañ doon campagne fii mais fii ci Touba Ablaye wàdd euh, seen bulletin jël nañ ko dugal su poubelle yi. Euh, yi gañe leen fii nii te kon bul wax ne Ablaye Wade moom ñoom ñoo sauvé waa Yewwi. xam nga soo nee ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, comment dire euh, ñoom Pastef ay ñoom kii sel buté Ablaye Wade dama yaakaar ne ji élection de fa danga naan kay dañoo jëloon yéen seen liste di campagne di liste bi ko ko watal watal nga góor jigéen ñi te jàpp naa ne ñoom <laughs> teggi nañ seen tuuma ndax ak léegi gisuma fi fi góor jigéen traversé ba di fi am kon danga naan dañ doon def campagne yu diabolisation di wax ne liste bi ku ko voté watee nga góor jigéen ñi ku daganal góor jigéen ñi ku liste bi te Touba li ma la wax sànq rek bu ñu xasee ba for benn kàddu te loolu ñuy xas ba dugal seen bopp pour nga ko ci seen bopp problème lay doon mais va euh, campagne ñun ci bilan en même temps campagne ñun ci euh, euh, profil bi ñu am campagne de diabolisation lañ doon campagne te ñun la wax vraiment ñun suñu kilifa yarewuñ ci loolu booy wut dangay wut ci ngor sooy am da am ci ngor. dul bëgg am mukk bay tax ngay tuumaal ki ngay jàkkaarloo nga wax mais lu ñu fi wax fi dégg nga ko fi ji li góor jigéen li si góor jigéen maron bi mooy góor jigéen bopp fas bi mooy góor jigéen bopp fas ko ko wateel lépp lu lislaam doon loolu ji li fi la fi la fi la lap fi dégg ko loolu lañ fi doon campagne loolu loolu lañ doon campagne campagne de diabolisation rek moo fi nekkoon mais campagne fi campagne yu bilan ndax ñoom ci seen biir campagne législative sax dégg na euh, Ousmane Sonko bi mu ñëwee ci rond-point Mbacké bi li mu njëkk a wax saaku ceeb la njëkk wax na su ma demee assemblée nationale su ngeen watalee ba ñu nekk assemblée nationale li may njëkk a def mooy wàññi ceeb ana ak député ak wàññi nga kon loolu du du du du du du nekkut lu lu wér ci rond bi bi mu ñëwee saaku ceeb la yëkkati moom ak Cheikh Mbacké Bara Dolly bi ko yëkkatee ne ñu ngi nii bu ngeen ñu fàttalee ba ñu dem assemblée nationale tey jii bu ngeen ñu fàttalee ba ñu demee assemblée nationale li ñuy njëkk a ngeen fexee bañ dem assemblée nationale li ñuy njëkk def mooy wàññi ceeb man ay ree daf ma jàpp sax Bintu est-ce que ma wax lii non jiili demal non demal YouTube élément yi ñu fi du ma wax lu ma xamut élément yi fi mais euh, Ousmane Sonko Bintu euh, de manière générale euh, Ousmane Sonko am na ñu ko bëgg ci dëkk bi. non loolu weddi wuñ ko xam nga Ousmane Sonko amul popularité ku koy wax dangay wax lu la neex xam nga nit ki tamit même boo àndul ak moom. nangul ko ko Ousmane Sonko am na ñu ko bëgg comme ni mu amee ñu bëgg président Macky Sall ci dëkk bi comme ni mu amee ñu bëgg Ablaye Wade parce que nit ku nekk ñaari ginaar sax jiilu boo leen fekkee ñuy xeex il faut nga am nga foofa far nit ku nekk légitime nga pour far fu la neex. Hmm. am na popularité loolu loolu loolu loolu lu waaye bañ bañ bañ bañ da nga koy nangu. d'accord man man aw ma problème boobu. d'accord jërëjëf euh, bint Diop nga nekk responsable politique APR fii ci Touba sànq yaa ngi wax ne Macky Sall changé na euh, karxaramu Touba. Euh, mais euh, karkaramu Sénégal maanaam liggéey na ci Sénégal mais fii ci Touba tey gis nañ nawet baa ngi nii màggal gaa ngi waa ñëw dëkk baa ngi nii mbedd yaa ngi buuj ana assainissement beeg euh, yi ñu wax. xam nga jiili dañuy sant son excellence euh, président Macky Sall ci li nga xam si ne def na ko ci Touba nam bi mu soppee xar kanamu Sénégal tamit bàyyi na xel Touba gis nga assainissement Touba lii ci président Macky Sall def yeneen nguur yi fi jaar buñ ko ci defoon aussi ak ñi dëkk ci dëkk bi def ko ci yaakaar naa ne assainissement bu Touba dina am changement assainissement Touba nag lu naqaree régler la parce que li tax mën na la naqaree régler la mooy bala ngay dëkk war nga xam fi ngay dëkk bala ngay tabax war nga xam ni ngay tabaxee pour sóoraale assainissement mais dëkk boo xam tey peut-être xëy na loolu dañ ko fausé organisation boobu ku nekk dangay tabaxee ni la neex ku nekk dangay defee noo xam ne si ne tey dëppoowul ak yoon tey loolu jàpp naa ni président mac Sall lim ci man mooy feeñee ci asaka ak yeneen mais assainissement Touba tant que ni ñu tabaxee ak ni ñu dëkkee amul changement beneen président bu fu mën di ñëwit ak lu fi waaye man di defit assainissement Touba day continuer di gën di di gën di di gën di gën di lajj naam nag am na ay koñ ci yoo xam ne peut-être amoon na jafe-jafe assainissement tey xëy na président Macky Sall am na lu mu ci def ba ñooñ tey ji seen jafe-jafe tey mën naa jël tey nii lu mel na tokkooru seen cheikh man bu masaan taw booy masaan dem asalem da am jafe-jafe doo fi jaar tey foofu tey soo fi jaaree su tawee day day day day tey soo ñëwee ci station Total station Shell bi avant ngay egg commune bi waxuma la Tata commune bi waxuma la fi jàkkaarloo commune bi non waxuma commune bi mais avant ngay yegg ci station Shell boobu foofu tey bu masaan taw deux voies yooyu boo rombee boo rombee euh, Elton foofu moom daawul am problème bi non am problème station bi fi nekkoon sax dafa amoon ba am jafe parce que durant nawet bi du jaay parce que ku fa taxaw da nga naan kii station bi station bi day jaxasoo ak ndox kon du ma mais Touba ni yëpp ñaari bërëb yooyu. non dama la jox exemple xam nga dama ne la dama la jox exemple ci ñu ko doon jël du fi jeex dama ne la ji li assainissement Touba pour ñu régler ko président Macky Sall mënu koo régler keneen ku ñëw mënu koo régler tant que saytu wuñ nit ñi bala ñuy dëkk nañ la ñuy dëkkee tant que saytuwuñ loolu assainissement Touba moom yaa problème lay am. mais mais mais beneen bi aussi mooy euh, nguur gi chaque màggal mu ne dana régler affaire ndoxu Touba mais tey la askan bi gën a am ay jafe-jafe bintu ba fi Macky Sall ñëwee ba léegi problème mu assainissement Touba réglé wuñ ko problème mu màggalu Touba ndox am ci dëkk bi euh, réglé wuñ ko. xam nga danga ne bi fi Macky Sall ñëwee ba léegi problème mu assainissement réglé wuñu ko mais avant Macky Sall di ñëw problème mu na problème mu assainissement. bu ngeen ma falee ma réglé sa inter dafay mel ni Macky Sall moo ñëw indaale problème mu Touba. déedéet Bintu fekk fi. may ma ma Touba am po non Bintu. da nga may may ma tontu waaw xaar non xaar ma reformuler question bi Macky Sall dafa problème assainissement am ay jafe-jafe yu fi am Macky Sall na bu ngeen ma falee problème assainissement bii ngeen am dinaa ko régler 2016 Macky Sall wax na ko fi ay yoon yoon yoon. waaw te ba léegi gisuñu ne réglé na. waaw ndokk bi nga rel bi ngay dewaatee question bi ndax bi ngay intervenir sànq da nga ne Macky Sall dafa ñëw indaala ak problème mu assainissement Touba ma bëgg a leeral askan wi Macky Sall problème mu assainissement Touba fi la ko fekkoon indaale wu ko. jox ay promesse te bi non bi mu ñëwee gis nga ji li heure booy laajum réew di nga ne su ma ñëwee lii dinaa ko changer mais tey ñëwoon croiser les ci dinañ xam ne kii li mu waxoon defu ko mais diir bu mu ñëwee ba léegi assainissement Touba président Macky Sall mi ngi ciy def kéem lay kàttanam assainissement Touba jii li ñu wax ko te ko koo wax gis nga bu ñu bëggee mu réglé bu ñu bëggee mu réglé wu ñun nu ñu dëkk dinañ ko xool tali yi ñu def ci biir dëkk bi dinañ ko jox ay entreprise yoo xam ne si ne dañuy saytoo ay assainissement pare doo ko def ay tali mais ji li yow ci dëkk bi nga dëkk kii marché yi tali yi xam nga niñ koy joxee tey ay entreprise yoo xam ne si ne être ñoo xam ne si ne ah xamuñu li tali wala xamuñu li assainissement ñoom ñoo koy gagné te Touba c'est spécial parce que tey bu nekkee ne beneen dëkk la bu nekkul ak Touba day ñëw ne ah fii laa bëgg a jaar laa bëgg a jaaree bu dee ay kër dañu faa nekk mu dee commencé ko fii nag président Macky Sall su ñëwee am lu mu bëgg def waru garam mooy dem ba ci sëñ bi na ko lii laa la bëgg may lii laa fi indi pour Touba sëñ bi moo koy jël jox ko naam na xëy na ñañ koy jox la dëppook lañ war a def bokkul ak li nga xam ne si ne moo tax état jox leen ko lool kon ñu ñoo war a régler suñu bopp ba pare doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko mais lan la Macky Sall def Touba. ji li Macky li mu def Touba boo fi toogoon di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko lim doo fi jógee benn ñëw naa sànq ci assainissement bi donte dajul fépp tamit am na problème bu mu ci réglé tey boo jaaree buntu kër sëñ Abdou Karim route nationale boobu président Macky Sall moo ko fi def tey Gédé tali sëñ Bass bi nga jaar bi ngay ñëw route boobu tey président Macky Sall moo ko def te naam Gédé soxla woon nañ tali tey boo jaaree Pencum Mbaye Wade tey route nationale boobu tey président Macky Sall moo ko def def fi lëmp 2000 boo demee hôpital Cheikhul Khadim Gueye xam ne président Macky Sall lu ko waaye bañ bañ bañ bañ bañ lu mu def Kaffrine bu fa defee 750 li bu ñëwee fii 1500 li la fiy def nga bàyyi bàyyi xam nga euh, jili ma nekk naa hôpital Fawzeyni hémodialyse boo mosaan ñëw quinze places moo amoon soo mosaan ñëw nekk 16e personne dangay xaar nit génn nga dugg te tey boo demee gis immeuble bi nga xam si ne taxab tabaxal na ko hôpital euh, Matlaboul Fawzeyni nga xam ne kon président parce que àdduna li ci ëpp solo mooy da ngay wér soo wéree ba pare il faut nga am foo dem boo demee tamit boo amee foo dem tamit il faut nga am éclairage public nga gis président Macky Sall 2000 lampadaires yi nga xam ne def na ko ci dëkk bi naam sax parfois ñu jéem ko Touba ci kanam kon loolu jàpp naa ni bilan la boo xam tey président Macky def na ko fii ci Touba. ay lamp rek non non non waxuma la lamp de damaa ñëw dama la ñëwal ci santé te nit balaatal dara dafay wér. te ku ne xam na ni hôpital Fawzeyni amoon nañ problème mu dialyse amoon nañ problème mu dañ daan def opération ba ci yàgg nit décédé pour problème de oxygène te problème boobu tey président Macky Sall réglé na ko heure soo amee sa doom waxuma la affaire opération mais soj sax bu ko demee bu ko demee ñu defal ko masque loolu à grâce président Macky Sall hôpital niveau 3 tey jii tey jii tey jii boo fa demee xam ne à grâce président Macky Sall kon def na sant lu am solo ci do ndax depuis 1960 1960 la Touba Gadiam hôpital Ndamatu daal nga fi wax ak ay non non waxuma la benn hôpital dama ne benn hôpital bi ko fi bi fi amaatoon Modou Modou yoo ko fi def te ñaata régime ñoo fi jaar kon président Macky Sall bu ñëwee defal ñu loolu loolu bilan la su ñëwee defal ñu avion loolu bilan la su ñëwee defal ñu assainissement loolu bilan la su ñëwee tey defal ñu ay ay lampe loolu bilan la ak yoo xam tey soo ko doon jël doo ko wax di ko wax di ko wax di ko wax doo doo doo doo doo doo fi jógee ci bilan président Macky fi ci to te rek du Sénégal Euh, jërëjëf euh, soxna Bintu Diop euh, wax nga ci li nga xam ne tey moom la nga wax ne moom la président def Touba waa Touba ñoo ngi ñuy déglu waa Sénégal aussi ñoo ngi déglu léegi bala ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy seen parti bi di APR nga xam ne fi mu ne nii am na ñu koy méngalee sax ak armée mexicaine mais da nga nekk chargé de mission ci ministère bi ñu dénk wàllum njaboot gi ministère boobu est-ce que mu ngi def liggéey boo xam ne mën nañ see loxo. waa ji lii dañuy nuyu suñu ministre de la femme Adjaratou faatu Gaye Diané ci taxawaayam bu rafet bi nga xam ne si ne am na ko partout dans le monde mais surtout fii ci Touba waaw ministre de la femme mi ngi def liggéeyam ci bu wér a wér taxee may li tax ma ne nag mi ngi def ci liggéeyam ci lu wér a wér aussi xam ne nit ñi ci bokk aussi mu boole leen ci de un deuxièmement bi tamit ku ne xam ne ni ministre de la femme avant muy nekk ministre de la femme ku ne xam ne ni moo nekkoon Euh, avocat jigéen ñi ci jigéen la daan xëy jigéen ci la daan gont ba tey jii jàpp naa ne képp kuy def kër jigéen ñi ci Fatou Diagne Gueye nga ko gisee kon su euh, président demee ba jox ko ministre de la femme azarut ndax gis nañ ko ci fii ci Touba li nga xam ni mi ngi ko fiy def bi mu yoree tey bari na jigéen ñoo xam tey fii ci Touba boo duggee seeni kër ñu yor ay frigo yu ñuy mën a jaay di ci am weccet di ci yaxantu grace à ministre de la femme tey bari yu góor yoo xam tey boo leen rombee ñu yor ay jakarta wala moto trois roues yooyu grâce à Fatou Gueye Diané kon xam naa ni euh, am na taxawaay bu rëy bi nga xam si ne am na ko am na ko fii ci biir Touba. fi ma dëkk frigo rek fi ma dëkk fi laa mën wax doo waxuma ci moto frigo tey. ñëw na tamit jël ay nit ñoo xam si ne ci parti bi la ñu bokk di jàppale président Macky Sall mu nommé leen ay chargé de mission ñooñu wan na leen ne du leen may jën dama leen di jàngal aussi ni ñi ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy nappee. est am na financement. financement xëy na euh, mi ngi commencé mi ngi financé mais exceegul Touba. wala de la femme dafay am financement mi ngi financé bu am solo noonu la ko defee ci département Dakar noonu la ko defee Thiès ànd na ma na ci ay yoo xam ni def na ko fi na exceegul Touba mi ngi ci préparation ñu ngi koy lancé nag mu egsi Touba gën a jàppale jigéeni Touba comme ni mu ko daan defee bi mu nekkee ancien directeur Promise mais gëm naa ne taxawaayam ci Sénégal daanu nag dajul fépp mais mi ngi ci mi ngi ci mi ngi mi ngi ciy bay waaram. Euh, léegi euh, soxna Bintu euh, ginnaaw bi nga waxee li nga xam ne tey moo jëm ci ministère bi ñu dénk wàllum njaboot gi ndax dégg naa ñu bari ci Touba jël leen ay charge de ay charge de mission mais ñu wax ci li nga xam ne mooy actualité nationale ci seen parti bii di APR keroog bi président Macky waxee ne du nekk candidat ban yëg-yëg nga ci am ndax yéen fu ne ci àdduna bi waroon ngeen fa kane président Macky Sall euh, day bokk finalement mu mel ni euh, lu leen njuuy ban yëg-yëg nga ci amoon. waaw dañuy féliciter son excellence euh, président Macky Sall di wax ni ndokk bi muy confirmer li mu waxoon parce que man jàpp naa ni président Macky li mu waxoon lu muy confirmer la waaye du lu bees yenn saa yi sax ma dégg journaliste yi di wax ne président Macky Sall li mu wax. Euh, euh, duñ wax sax dëggal na li mu waxoon man nag dama naan confirmation bi nga xam ne def na ko parce que euh, président mac Sall yaakaar naa diir bi mu toogee ba léegi bi nga xamee si ne ñëw na ci mandat bi li mu wax lu leer la soppi naa ko ba kenn mënatu koo def lu dul ñaari yoon. Hmm. njëkke naa ko ci sama bopp loolu la waxoon kon suñu ñëwee tey mu def déclaration def confirmation loolu confirmation laa ko mën a tuddee. vraiment man aw ma ci lu ma bett parce que tax aw ma ci lu ma bett mooy jàpp naan ne diir bi ko président Macky Sall waxee ba léegi émission bu ma mën di toog it suñu journaliste yi posé question président Macky Sall dafa bëgg def troisième mandat dama naa leen bàyyi leen ba ñu yegg ci loolu du ñu wax ci lu suñu kilifa waxul te gëm naa ni président Macky Sall ku fonk kàddoom la aussi ku ku ku ku ku ku respecté kàddoom la tey moo tax ñii di wax naan président Macky euh, wax na da wax na day def troisième mandat man damay wax ni président Macky Sall dafa confirmation bi dañ ko ci sant aussi di ko féliciter man vraiment ngeen mu def troisième mandat. waaw bëggoon nañ mu def troisième mandat xam nga tax bëggoon nañ mu def troisième mandat tey président Macky Sall fi mu jëkk fekk réew mi ak fi ñu ko yóbbu tey ak fi réew mi toll jàpp nañ ne ku mel ni président Macky Sall rek moo ko moo ko moo ko mën a yor loolu nag xëy na suñu gis-gis la ak suñu bëgg-bëgg mais nag moom nga xam ne moom moom boppam aussi te eh, wax nii lépp lu mu mën di am ci kaw suuf kàddoom moo ko gënal dañ koy respecté nangul ko eh, suwaam mm-hmm. mais ñun jàpp nañ ci suñu gis-gis président Macky Sall moo mën a yor réew mi loolu nag du gis-gisu askan wi yëpp ñun suñu gis-gis la ñun ñi féete ak moom wala sax ñenn ñi féete ak moom parce que munoo waxaaleel ñëpp li nekk ci sa yow bopp rek nga mën a xam mais man jàpp naa ne fii réew mi toll président Macky su ko wàccee jox teg ko ci loxoy keneen loolu comme ni ñu koy waxee trahison la. mais nag nit ku nekk danga koy nangul gëm-gëmam ak aussi li nga xam ne si ne moom la gis moom la bëgg danga ko koy nangul moo tax dañ ko ko dañ ko dañ ko dañ ko ko nangul mais vraiment man moom bettu ma donte bëggoon naa ko nag mais man bettu ma. d'accord léegi euh, bi président ne du nekk candidat gis nañ ñu bari ñoo ngi yëkk yëkkati seen loxo. wala ñu bari tey ñoo ngi leen di tudd ko ci mel ni Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye Mohamed Boun Abdallah Dionne ba ci Abdoulaye Diouf Sarr mu mel ni kenn ku nekk daal say ñooñ bëgg nañ ñu jiital la yow ban taxawaay nga ci am ak kan nga jàpp na tey bu ngeen ko jiitaloon mën naa nekk candidat benn Bokk Yaakaar bu man a gañ ay élection xam nga jëlee ñun dañu bokk ci parti parti bu ñu naan APR ñu koy wax coalition benn Bokk Yaakaar ñun nag yàlla dafa dogal dañoo am discipline de parti discipline de parti nag paasewul bi ñu nee parti APR dañu ne président Macky Sall yaay suñu chef de parti dont mooy président de la république yaakaar naa nag ñàkk discipline de parti paasewul ngay wax à ta place sa kilifa waxagul ñun dañu am kilifa ñun li ñuy xaar moo xam Diouf Sarr la moo xam Abdoulaye Daouda Diallo moo xam ku mu mënti doon ku nekk am nga sañ-sañu bëgg ñun tamit am nañ xalaat mais ñun suñu xalaat amuñu sañ-sañu fësal ko Euh, nga ne da nga am euh, da nga am discipline de parti moo tax mënoo wax exactement kan nga jàpp ne tey buñ ko jiitaloon coalition benn bokk yaakaar ma naa gañe. waa jili ñun dañoo am discipline de parti discipline de parti nag paasewul ñun dañu doyloo président Macky Sall ko suñu chef de parti. Mhm. donte mooy président la république. bi ñu tabbee affaire bi ñu ko taxawalee moom lañ jël ne ko yaa ne suñu kanam nit ki nag mënoo koo jiital pare di ko fakk sal mhm. fakk sal nit ki nag paasewul ngay wax ci place am. ñun am nañ xalaat ci ku mu tànn ndax ay nit lañ dañuy xalaat mm-hmm. waaye amuñu sañ-sañ fasal suñu xalaat wala ñuy wax suñu xalaat te suñu président waxul ba pare mm-hmm. suñu président bu waxee nag am nañ sañ-sañu ndax dañoo bokk ci parti bi am ci xalaat mm-hmm. ne lii lañ xalaate nii lañ xalaate mais guddi yu ñu toll man Bintu Diop wax dëgg yàlla du ma wax tànk sama kilifa waxut ñoo ngi déglu son excellence président Macky Sall. Ah, mais Bintu dafa am ñoo xam ne ci parti bi lañ bokk ñoom jàpp nañu ne membre authentique bu parti bi la ñu war a la ñu war a teg ñenn ñi jàpp ne dañu war a teg un homme de consensus. gis nga li am solo membre authentique un homme de consensus yëpp li am solo mooy ku mën a defar Sénégal ku mën a jëmale réew mi ëllëg fi président Macky Sall fekkoon réew mi ak fi ñu ko yóbbu moom mu fekk ko foofu yóbbu ko fu fa gën a sori. loolu jàpp naa ni mooy mooy farata ji mais authentique be un homme de consensus bi yëpp li ëpp importance rek nañ jël ki gën ci Sénégal. yow yow léegi est-ce que pare nga pour ku président Macky Sall tànn yow nga ànd ci. loolu ji li sama biir wax dama ne la am nañ xalaat. dañoo bokk ci parti discipline parti. non dama ne la dañoo bokk ci parti bi. Mhm. mais bokk ci parti teewul ñu am ci xalaat. am ci xalaat paasewul dama ne la su président Macky Sall waxee ñu dinañ fasal suñu suñu suñu dinañ fasal suñu xalaat aussi dinañ wax. li ñu xalaat ci parti bi. waaw di nga wax li ngeen xalaat ci parti bi mais ndax pare nga pour que président Macky Sall euh, nga ànd ci. loolu moom sama sama sama sama sama sama sama sama yëfu sama yëfu bopp la lii président waxoon rek du mën a wii du a non dañoo am discipline de dañuy toog déglu suñu suñu. seen parti discipline de parti. non non li nga ak discipline de parti. da ngay wax ne ñun parti bi ñoo jox président Macky Sall carte blanche comme tànn ñu ñu d'accord ci. dama na la ji ba tey génnaguñ discipline de parti man naam sax président di tànn ndax man du ma kenn Macky laa man naam que président di tànn ma d'accord ak moom man du ma kenn man Macky laa man du ma du ma du ma du ma comme ni ko waxee sànq nee am na ñoo xam ne ay ay Diouf Sarr lañ ñi ay Amadou Ba lañ man Bintou Diop président Macky Sall la. mais Macky day tànn ci turu parti bi yéen waa parti bi ko Macky Sall koo tànn ñu ànd a ko wax ci turu parti bi. am nañ sañ-sañ sañ joxe ci suñu xalaat jox sañ-sañ noonu xam nga joxe sa xalaat jiili tekkiwul ne. waaw joxe sa xalaat tekkiwul ne. nga ne président tekkiwul ne li président def. àndoo ci du ma ci ànd. ok léegi loolu laa bëgg a wax léegi bu président Macky Sall tànnee comme man di tànn yow di nga si joxe sa xalaat mais di nga ci ànd. déggoo li ma wax dama ne la mbirum tànn ak ànd nañ bàyyi ba suñu kilifa wax ba pare foofu moom loolu foofu laa ci yem. kon yow Bintu amoo discipline de parti. waa nangul naa la ko mën nga gisee noonu. amoo discipline de parti. déggoo dama ne la nangul naa la ko dama ne la mbirum tànn ak teg man. damaa tuuti ci di ci wax ndax dama am kilifa gu nekk sama kilifa gu nekk sama kanam. mais yéen seen parti APR da ngeen a daje ngeen ne président Macky Sall yow koo jiital ñun waa APR ànd nañu ci n'est-ce pas yéen wax loolu. ji li déggoo ma dama ne la. waaw man mbirum tànn la ma daan wax ci mbirum candidature bi laay wax rek bu ñu masaan président Macky Sall def troisième mandat dama naan leen dem leen est-ce que du leen teel seen daal ngeen dem laaju ko mbirum tànn mi taxawaay laa ci am. dañoo am suñu kilifa mu ne ci parti bi. waaw waxagul. ngeen doyloo kilifa bi ñu doyloo kilifa gi waxagul lu def ànd ngeen ci. dama ne ñu doyloo kilifa gi bu ñu doyloo xam nga lu ñu def ànd nañ ci ànd ci loolu beneen affaire la mais dama ne la mbirum candidat bi nañu bàyyi ba suñu Macky Sall contrôleur tout APR. bintu mosoo waxee ñii. non loolu yow loolu nga gis danga may nangul sama xalaat ji li waaw man de maa ngi maa ngi yëg ne Macky Sall mën naa tànn koo xam ne di nga dem ànd jeeg keneen man gis naa loolu. non loolu moom. te l'histoire de Kendra. loolu eggaguñ ci. Ah. loolu loolu xam nga loolu egg eggaguñ ci xam nga. ci cër bi ngeen joxoon Macky leen ko Macky. xam nga loolu eggaguñ ci mooy xalaat sa xelu xalaat xalaat yàlla rek moo mën a xam li xew te li ma xew suba ñun ay jàmm rek lañ am nga sañ-sañu nag gisee noonu mais loolu daal moom. li ma la ci wax rek loolu egg eggaguñ ci te wax ci lu ñu eggagul moom yaakaar naa ni suñu kilifa dañu koy tere muy le président Macky Sall lu luñ koy mën di wax danaan nañ bàyyi bañ egg ci te loolu référence la bu ñu roy ci moom mbirum candidature bi moom foofu rek laa ci jàppandeekoon na nga nangul ma ko nag. sama position boobu. waaw non sa position mooy koo xam ne tey euh, Macky Sall influence bi amoon ci yéen amatu ko ci yéen ndax yéen APR yéen da ngeen ne président Macky Sall yow. yaay sunu njiit ci parti bi ñun waa parti bi d'accord nañ koo tànn ñu ànd ci boo tànnee Bintu Diop ànd nañ ci boo tànnee Massamba ànd nañ ci kenn ku nekk nag mën nga see joxe sa xalaat mais da nga si dem ànd mais yow nii ngay waxee mooy Macky Sall mën naa tànn koo xam ne du la ko imposé. ji li ba tey déggoo ma wax la loolu dama ne la am naa xalaat bu Macky tànn dinaa ci joxe sama xalaat. Bintu bu Macky Sall tànnoon Amadou Ba ndax da nga ci ànd. ay Amadou déggoo sama bi nee naa la Saaro Aly Ngouille Ndiaye man duma kenn Macky la. waaw dama ne président Macky Sall mi nga doon. gëm ko ci politique muy sa kilifa ndax bu tànnoon daaw Daouda Diallo ndax di nga ci ànd Bintu Diop. loolu eggaguñ ci. eggaguñ ci waaw. d'accord léegi euh, gis nañ seen parti bi keroo seen siège parti euh, APR Dakar nitu Ablaye Diouf Sarr ñi ak nitu Amadou Ba ñi doon fa xuloo ak euh, ak a xeex violence boo xam ne gis nañ ko fa yow ban gis-gis nga ci am. loolu ji li ñëpp ko lu kenn rafetluwu ko kenn rafetluwul image boobu mais politique ak loolu ñoo ànd politique kenn mënul contrôler sa ginnaaw parce que parfois. militant yi ay doomu aadama leen dañuy am yëg-yëg loo fa am gëw ma ne Diouf Sarr moo ko deflu li fi am gëw ma ne Amadou Ba moo ko deflu politique ndëkk ak coow moo bindoo politique ci coow lay ubbee ci coow lay tëje loolu nag képp ku bokk APR rafetlu woo ko te xëy na yeneen organisation dinañ ci jëlaat yeneen mesure ba lu mel noonu bañ leen a dal mais ñu ko def it dañ leen koy nangul xam ne ay nit kese lañ te aussi nit mooy mooy mooy mooy juum mais loolu amul képp ku bokk APR ku ko cautionné wala nga nga nga nga nga nga nga nga rafetlu ko muy ñi ko commencé ci kaw ba ci ñi commencé ci suuf mais politique ak coow moom ñoo baaxoo te politique parfois Euh, doo contrôler loolu rek la mais gëm naa ni dinañ ci rendre compte duma ko jiiñ Amadou Ba du ma ko jiiñ Diouf Sarr parce que ñoom ñëpp euh, déggoo ak booloo ak unité moo leen indi woon kon bu ci loolu amee rek politique moo mel noonu du ñàkk ay frustration du ñàkk ay coow te souvent ñaari bu militants yi coow sax kilifa yi duñ ko yëg loolu rek la mais loolu gëm naa ne dañ ci tenir contre ba dootuñu dalaat. mais mais parti bii di APR ndax jëmul ci ci tasaaroo ak coalition Benno Bokk Yaakaar. non man gaw ma ni parti bi de affaire ci tasaaroo la jëm fii jii li benn parti parti yëpp am coow politique ak coow ñoo ànd parti yëpp am coow mais ci ma wax sama biir wax sànq dama ne la politique. contexte non dama ne la ñun dañoo nekk parti au pouvoir ndegam opposition ñoo nekkul parti au pouvoir am coow ñun ñu nekk parti au pouvoir te ku ne xam ne parti au pouvoir ëpp ay intérêt kon jàpp naa ne coow ci ñun la gën a ëppee mais ci loolu tamit parti pour mooy ne. politique ay contexte la bu suñu intérêt taxawee ci ñu ànd booloo doon unité dañuy ànd nekk benn xeex li ñu war a xeex te essence yi ñu jëm loola laaj ànd booloo nekk unité ba yàlla dogal kum fi man di teg ñu fax ba élire ko mu nekk président parce que nag li tubaab di wax l'homme qu'il faut à la place qu'il parce que képp kuy woote APR képp ku nekk naan na nga nekk da nga da nga da ngay da nekk ministre wala nga nekk député bu doon président Macky Sall doo ko nekk kon li ñu ko may duñ ko duñ ko xañ suñu bopp li ñu koy may nag mooy booloo unité. Euh, est-ce non mën na yomb parce que li mën na yomb mooy non non xam nga dina yomb ak du yomb moom mën na yomb mën na bañ a yomb mais ñun ñëpp bu ñu xamee li ñu jëm ñun ñëpp ñoo ko bokk war na mën a yomb ay nit suñu fekkente ne bu ñu yëkkatee bu ñu jàppoo mooy yëkkati saag bee ji li baax daata ñëpp ku nekk war ngaa mën a teg li nga yor ba ñu yëkkati saag parce que mooy suñu intérêt. mais yéen président Macky Sall dafa waxoon maire yi keroog bi ne recevoir ci pale bi ne leen yéen bu àndul ci seen biir duma leen campagnal ndax da ngeen di Euh, da ngeen di perte mais ànd boobu lan mooy tax ànd boobu mën a am ci choix bi lay doon wala. xam nga président Macky Sall mooy suñu kilifa ni ma la ko waxoon sànq du dóor doon di làq doom bu ñu àndi mu ànd ak ñun bu ñu àndul it ci waru garam parce que ku nekk ci parti bu ku ne rek ci parti bi nga bokk te jox nga lebal nga ko cër kon du yoon tey Djily Boubacar ak bintu Diop jotee mu dem di faral Djily di bàyyi bintu Diop. parce que ñun ñëpp ñoo bokk dayoo ci parti bi te parti bi ko ci nekk nga néew dooleeg nga am kàttan def nga ci dara kon booy booloo gi mu ne ci suñu kanam mooy suñu jàmm te gëm naa ni booloo googu man ci lu ma rafet njort la ne aussi dina am. yaa ngi ne nga naan du yomb waaw loolu sa gis-gis la ak sa analyse. ko di bëggantewu leen. sa gis-gis la ak sa analyse. non non non bëggantewu leen loolu leen dëgg bi. xam nga bu leen bu leen jaawale contexte politique. ak ñàkk bëggante ndax ñun parfois ngeen dégg ñu ci panel bi ñuy xasante wala ñuy waxante te ku ci nekk sa intérêt ngay défendre te pourtant bu gudd jotee peut-être ñooy bokk benn milieu bu ñuy toog di bokk reer ñooy bokk benn atta sax ñooy bokk benn plateau boo xam ne ku ci yor ko du tibb di sex loolu contexte politique la mais bañante wu ndax ku ci nekk ngay ñëw di ci parti bi di adhéré wu xamoo woon sa morom te ku ci nekk li nga war a am ci parti bi sa morom mënu la koo xaj kon bañante amul politique moo baaxoo coow day ubbee ci coow di tëjee ci coow ku ne di défendre say intérêt mais pas ay bañante di ngeen a ba ngeen a ba ngeen a bëgg man kàddu googu dama ko dàq li tax ma ne dama ko dàq mooy tey ñun ñi nga xam ñoo nekk Touba ñi ñu jàpp ne dañuy tojante bopp tey ji ku ci amoon naqar ñooñu ñoo leen njëkk a fekk ku ci am bànneex ñooñu ñoo leen njëkk fekk bu ñu dajee ci mbedd dañuy nuyoo dañuy akolaatante mais ku ci nekk yéen yéen nga sa morom jàmm. bu passé contexte politique waxante nii ku ci nekk bu ubbee sa biir xol la mu yéen a boppam la yéen a morom. mais xam nga yow Bintu xam nga euh, diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak euh, Amadou Ba diggante Amadou Ba ak euh, Abdoulaye Daouda Diallo ak yeneen tension yoo xam ne am na ci biir APR tey ñëpp xam nañ ne am na ñoo xam ne bu ñu leen jiitalee dina bëri ñoo xam ne danañ taxaw bañ ci ànd. xam nga man gëm naa ni Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba ñoom amuñu problème ñoom amuñu problème ndax ku ci nekk bi ngay ñëw di rejoindre président Macky Sall xamoo sa morom te ku ci nekk président Macky jox na la ay privilèges kon ñoom war nañoo xam ne tey li ñu doon ba ñu leen di tudd ak grâce président Macky Sall lañ di ko olof li ko tubaab di waxee rek l'homme qu'il à la place qu'il faut bala nga ne naam da fay nekk ñoom ku ci nekk député wala nga nekk ci président institution wala nga nekk ci ministre grâce à président Macky Sall lañ kon jàpp naa ne amuñu problème militant yi nag ñoom mën nañoo am problème seen biir ndax yow jiili yow am nga ko bëgg. Bintu Diop am na ku mu bëgg diw am na mais tekkiwul ci suñu bëgg-bëgg-bëgg yooyu nag ci la président war a sukkandiku bay xool lu neex kenn jàpp naa ne président ki muy def candidat kooku jàpp naa ne ku mën a yor Sénégal. war a xool ku war a mën a yor. ban profil la bi muy xool mooy fi mu fekkoon réew mi ak fi mu ko indi jàpp na ne ku war a mën a yor Sénégal la war a doon ku mën a taxawu askan wi la war a doon te gëm naa ne président Macky Sall loolu moo nekk ci boppam te lu mel noonu lay def te loolu mooy intérêt boo xam ne du intérêt personnel du ay intérêt ay général Euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 euh, seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ci rajo réew mi FM ngeen di sànd ak Abdou moom Seck Mamadou Diaw jàll mu nekk ci wàllu machine bi mbokk tey ñu invité bintu Diop euh, mu nekk chargé de mission ci ministère bi ñu dénk njaboot gi mu nekk tamit coordonnatrice jeunesse féminine benn Bokk Yaakaar ci département bu Mbacké moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi Bintou. Euh, seenu gañe yéen waa coalition benn bokk yaakaar ci élection présidentielle 2024 ñu bari njortuñu ko euh, du nekk tamit loo xam ne euh, lu yomb la ndax yéen da ngeen dem ay élection locale fu bari fu ngeen doon gañe ngeen perte ko ngeen dem élection législative bi ngeen demee élection législative capital régional yépp bintu da ngeen ko ñàkk mu mel ni yéen boo xoolee seeni résultat day gën di wàcc est-ce que deux mille dix deux mille vingt quatre rawatina sans Macky est-ce que du ngeen gën a am problème. jili euh, élection dafa bari façon élection yi ñu perte yëpp da ngeen élection locale. élection locale bi laay ñëw ba pare gis nga élection am naa sañ-sañu far président Macky Sall élection locale ñëw ma gëm ni Djily Bardaat mii moo bokk Pastef moo gën ci kon bi ma dem voteel ko xam nga loolu élection gox goxaat la. ku nekk dangay xool ki gën ci sa gox. loolu la ku nekk dangay xool ci danga wax sa xalaat may ma ma wax. nga nangul ma nga nangul ma nga nangul ma sama xalaat danga may nangul sama xalaat ndax tey ji am naa sañ-sañu élection locale ñëw mu xam ni kat. kii bokkul parti APR mais gis naa taxawaayam ci koñ bi ma dem votel ko parce que élection gox goxaan élection législative noonu la valable mën naa gëm ni kii kat élection législative la ku nekk sa gox moo lay fal sa département moo lay fal ma gëm kii ci département bu ñu nekk kii moo ci gën su mu demee ensemble dana mën a mën a xeexal li ma dem votel kooku ça n'a rien à voir ak élection présidentielle élection présidentielle mooy ki gën ci Sénégal ki nga xam ni waxuma la sa koñ waxuma la sa sa ruq waxuma la sa département waxuma la sa commune mais partout dans la monde ci Sénégal kii moo fi gën loolu yaakaar naa bokkul ak élection locale bokkul ak élection législative élection présidentielle te diir bi président Macky Sall accédé au pouvoir ba léegi bi ñu demee 2012 dañoo gagné élection largement bi ñu demee 2019 dañoo gagné élection largement te yaakaar naa ne askan wi xam nañ ni président Macky Sall moo gën ci Sénégal gën nañu tamit ki mu teg gëm nañu moo gën ci Sénégal parce que président Macky Sall ku ko xool xam ni Sénégal la ko ñor parce que li tax Sénégal ni mu neexee loolu dama ciy ñëw ji li baax daal nguur ni mu neexee tey gis nañ ah, Abdou Diouf daf Senghor dafa toog ba doyal dem bi muy dem euh, soppi constitution bi jox jox jox jox def ko article 37 fexe ba jox ba dénk Abdou Diouf Abdou Diouf bi muy dem carte ko fi jëlee maître Abdoulaye Wade bi muy dem carte ko fi jëlee grâce à président Macky Sall intérêt yi nga xam ne mu ngi ci kanam ak pouvoir yi nekk ci nguur pétrole feeñ gaz feeñ ay privilège feeñ tey nga ne damay respecté sama cadre retiré wu ngir jàmm Sénégal gëm nañ ñu kooku képp ku muy joxaat lenge yi kuy kuy jëmmal Sénégal la aussi kuy gën ci Sénégal la kuy jëm loolu nag maa ngi ciy woo Sénégal yépp ñu xam ko xam ni élection présidentielle de élection législative élection présidentielle de élection locale élection la yoo xam dañoo war a dénk suñu réew nit te nit kooku tey war na nekk nit koo xam ne si ne tey jii euh, ku jëmale Sénégal euh, kanam lay doon moo tax man élection présidentielle élection législative du ma ko jël di ko tëkkaleeg ay élection présidentielle ndax li ma la wax sa biir kàddu mooy sànq ñun ñii nga xam ñoo bokk ci njabootu président Macky Sall li ñu war mooy xam ne tey Diouf Sarr soxlawut Amadou soxla wut ñi sox ki soxla mooy Sénégal ki soxla nag Sénégal bu soxla ki ko war a mën a yor buñ ko jiitalee nañu dem ànd ak moom liggéey xam ne moo gën ci Sénégal. même bu dul bokk même bu bokkul ci benn bokk yaakaar. non na gën ci na gën na gën ci parce que. même bu bokkee Pastef tamit na gagné bu dee moo gën Sénégal. dama ne la Pastef ak APR ak yooyu yëpp Sénégal leen moo leen moo moo leen may ñi. mais que xame ngeen ko. dama la Sénégal ngeen yoree woon réew mi est ce que xame ngeen ko. dama leen bay jeexal doog dara. non non dama ne la Pastef Pastef ak APR ak parti socialiste ak parti démocratique yëpp. fi lañ fekkoon Sénégal te bu ñu demee fi la ñuy bàyyi Sénégal te Sénégal ëllëgu Sénégal mooy suñu ëllëg ñun kon ku mu mën ku mën di doon rek kii yor réew mi na doon ko gën. waaw mais yaa ngi wax sànq Ablaye Wade ay carte ko fi jële mais président Macky Sall est-ce que du pression bi moo bëri pression nationale pression ak manifestation yi nga xam ne moo fi mujjoon am. xam nga jili man su ma déggee ñu président Macky Sall pression moo ko fi jëlee jili àdduna ñaar rek moo fi am waxtaan bu juboo wala xeex rek moo am ci àdduna gis nañ président Macky Sall ni ko fi nekk ñu fi nekkoon ni ñu ko fi defe woon rek ni lañ ko fi defe mooy waxtaan gis nañ Abdou Diouf bi muy soppi constitution bi du ko def ñaari dañoo waxtaan ba juboo ci ñu bëgg a waxtaan rek laa wax gis nañ Abdoulaye Wade bi mu ñëwee bëgga dugal parité bëgg a dugal leen dafa toog ñu waxtaan constitution bi ba juboo gis nañ président Macky Sall bi mu ñëwee war a confirmer ñaari mandat yi fi Abdou Diouf tegoon jële ko sept ans yóbbu ko cinq ans dañoo waxtaan ba juboo réew mi nag waxtaan ba juboo moo fi am wala xeex ba léegi nag dama lay laaj pays yi xeex yi nga xam te dañoo xeex tey jii opposition yi nekkoon ci pays di xeex tey jii ñen ñoo téye seen nguur opposition yi dañ koy xeex tey jii armée moo téye seen nguur soo demee Libye armée moo téye seen nguur soo demee yeneen réew yi nga xam dañoo xeex tey ba ñàkk seen nguur ay Mali ay Mali ay Guinée ñooñu xeex tey opposition boobu doon xeex tey jii man ngaa Sénégal dangay waxtaan ba falu mais munoo xeex ba falu d'accord ñi fi xeex tey ba falu ñi fi xeex tey jii ñu nekkoon ci seenum réew di xeex Mali lii bi ñooñu ñëpp tey armée boobu tey ñoo tey ñoo tey ñoo tey seen réew d'accord bintu léegi euh, usman Sonko moom nee na par force par force day bokk wala élection du am ci Sénégal loolu jëli waxoon nañ ko 2019 dëgg élection élection législative waaw élection législative yi paase. yaa ne législative boobu te présidentielle non dama jum dama ne la élection yi paase. waxoon nañ waxoon nañ ko xam nga. mais bu mais bu législative du dama ne la yow yaa ko sànq. dama ne la législative du présidentielle maa ko wax sànq. mais da nga xool da ngay xool ci contexte bi ma ko waxee ak contexte bi nga ma laajee dama ne la xam nga Ousmane Sonko du bokk Ousmane Sonko bokkul di élection daam loolu débat la loolu. loolu. xew la waaw loolu ay wax la loolu débat la débat la boo xam si ne ñi koy wax sax gëmuñu ko parce que bu ñu fekkonte ne dañ ne Ousmane Sonko du bokk kon tey son Sonko fee ñu ko teg ñoom ñu mën a yaakaar koo xam dañ ko teg ci këram boobaak léegi léegi ma deux mois bougé wut demul fenn loolu mënoo koo rek la yow yow mi taxaw naan Ousmane Sonko du bokk yow jàpp naa ne mënoo yàq élection fii nag réewum Sénégal la heure bu ñu bëggee organiser élection dinañ dem organiser élection organiser ko ci jàmm élection ko ci jàmm. ku war a gañe gañe ay Ousmane Sonko du bokk moom man yooyu sax duma ci debaa parce que loolu waxu waxu ko far la aussi waxee ko la neex Ousmane Sonko mooy kan. non moom si boppam moom Ousmane Sonko moo ay élection am ci Sénégal moom bokk ci. loolu gis-gisam la loolu gis-gisam la. gëmoo ko yow. kaw moo ko li ko tee bokk na ko. ak popularité bi mu fi am. non dama ne la Ousmane euh, xam nga ay affaire de popularité. fii ñu ko fi ëppoon popularité moom njëkk ñoo ñoo ñoo fi nekk parce que tey par exemple tey jii tey jii jamono bi ñuy àtte Karim Wade waa PDS li ñu leen waxoon Karim kenn du ko tëj Karim kenn du ko tëj mais tey jii bi ko yoon waree àtte war koo tëj dañ ko tëj bi ñuy tëj Khalifa Sall fii dañ ñëwoon fii Khalifa Sall du kenn ko tëj bi ko yoon waree àtte war koo tëj dañ koo tëj bi ñu taxawee ah, Serigne Moussa Fassi bi mu amee jafe yoon boobu la Moussa Sidine ëppoon dañ ñëwoon du am te teewul dañ ko tëj tey jii mën nañoo jël ku Serigne ku mel ne Serigne Cheikh Béthio tey jii bi am leen tey yoon te yoon war a def liggéeyam dañ ko def te mën nañu jël ku mel ne Xaadim Busa kon jàpp naa ni Ousmane sonk su yoon paree ci moom li mu war a def amul kenn ku mën a xiixaan yoon ba doo def lu mu war a def. Sonko nee na du Karim du du Khalifa. mais xam nga Sonko du Karim du xalifa man loolu du ma du du du du waxu kasa kasa parce que Sonko yi la Karim yi la xalifa Khalifa yi la ñoom ñëpp ay citoyen lañ. ñoom ñëpp dañoo am lan teg yoon yoon def lañu war lañ lañ lañ lañ lañ lañ lañ lañ la ñu war a def xam nga su ma demul élection présidentielle élection du am loolu ku mu neex dama ne loolu ku mu neex nga toog ñu lay defal live direct ngay wax lu la neex moom moo war a xool digganteem ak la ko tee bokk tànkam ba ko tee bokk ak aussi tubayam ju ko tee bokk loolu na dem lijjanti loolu mais bu mu ko jiiñ kenn ay dumu élection élection du am ak yooyu yooyu jàpp naa ni wax la ju nga xam ne si ne peut-être dangay wax nii rek. pour ay laaj ko ba léegi te tëj nañ ko ndam nañ ko est-ce que ñeme nañ ko jàpp. man duma justice justice moo am sañ-sañu àtte nit ki justice moo am sañ-sañu jëlee nit moo am tëj tëj te am sañ-sañu man daal waaye simple la su ma amee jafe-jafe dinaa dem ci justice mais euh, côté jàpp nañ ko dañ ko war a tëj dañ ko war a gan loolu moom vraiment ci li euh, place justice la. te wóolu nañ suñu justice su réew ñu ngi bàyyi suñuy bët di leen xool luñ ko def ñu xam ni justice ñun ñoo ko doyloo fii la ci commencé fii la ci yem lii la ci war a def. d'accord waa Pastef dañu jàpp ne dialogue national bi ab deal la pour euh, Karim bokk Khalifa bokk ñu éliminer Ousmane Sonko. xam nga bu ñu nee euh, waa Pastef dañu jàpp ne dialogue nationale bi dama ne la sama biir wax sànq dama ne la àdduna réew mi waxtaan bu jub moo fa wala xeex bu ñu wootee waxtaan nag. yaakaar naa ni war ngaa mën a déplacé wu bokk ci waxtaan te ñi nga xam ne parti yi nga xam ne nangu nañu waxtaan tey gis nañ leen waxtaan wi jural ndax waxtaan woowu jàpp naa ne moo tax cré yi waxtaan woowu tey moo tax ñu soppi lii di euh, euh, parrainage te yaakaar naa ñu ñëpp loolu ñun euh, ñun parti au pouvoir amuñu ci problème ndax parti au pouvoir jëli amul problème mu ñu ñun amuñu problème mu parrainage kon jàpp naa ne suñu waxtaanee ba soppi si si si si euh, ci électoral bi loolu opposition bi la arrangé bu ñu waxee ba kër yi day li ci ëpp opposition bi la arrangé mais loolu yëpp waxtaan moo koy indi am réew bu ñu ko bokkee dañuy toog di ko waxtaan ku waxtaan wi intéressé wul na nga jàpp na ay intérêt la wala ay dil la kooku yow la engagé ndax ku bëggul waxtaan bi ci dialogue national bet yaa ngi sàkku pour waxtaan ak président mais waxtaan da ngay waxtaane fa nga war a waxtaane te gis nañu ko président non Ousmane Sonko gis nañ ko barki dem bi mu defee laay fi mu wax tout le temps daf daan wax naan soxla maa gis président Macky Sall jàpp nañ ci depuis bi mu dalee opposition ba rek benn yoon la gis sa président Macky Sall muy jamonoy Covid bi mais gis nañ ko ak déclaration barki dem bu li mu wax léegi nag léegi ñeneen parti dem nañu waxtaan bu juboo ah consensus am na ci am na ci waxtaan parce que fii guerre mondiale sax ci taabal la mujj fii jii li Bagdad lépp lu waxtaan mënut a lijjanti rek leneen du ko rek du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko rek du ko du ko du ko du ko a de li la wax rek àdduna moom waxtaan ak xeex te xoolal ñi xeex ngir doon laaj seen réew kan moo mujj seenu réew d'accord jërëjëf Bintou Diop waxtu jeex na ñu lay sant di la gërëm merci Djily maa ngi lay jaajëfal tamit ci euh, émission bi ak déplacement bi ak opportunité bi ma may tey ba ma mën a jàllale sama message bi vraiment maa ngi lay sant aussi di rafetlu di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm sax yàlla nañ am nawet bi barkeel di lancer appel tamit xam naa foofu loolu sax fàtt nañ koo indi suñu frères yi nga xam tey ñu ngi bëtt di dem ci gaal gi ñu gën a dellusiwaat seen xel xam ni. Euh, tukki yokkul wërsëg waaye ku soxla say mbokk non noo ku sori say non non du question espoir parce que boo nee dafa mel ne euh, sénégalais yi rek ñoo dem ñoo dem ci mbënd mi te mbënd mi jàpp naa ne ñun suñu bopp lañ xam mais bari na ñoo xam ne ay Afrique du Sud ñu ngi fi ñu ngi ñu ngi dem ci gaal gi Brésil ñu ngi dem ci gaal gi Sénégal mi ngi dem ci gaal gi kon bul ne seen espoir moo moom moom moo tas parce que li may wax à toujours mooy bala maa bëgg a dee ñu naan état dafa employé jël il faut ñu comprendre ne état du créer emploi état du créer mën naa créer ay conditions yi nag yu tax yu emploi am te loolu tey euh, journaliste nga gis nañ président Macky Sall yi nga xam ne créé na ko pour ay emploi am gis nañ fi ay financement gis nañ ay moyens de entreprise yoo xam ne teg na ko dans ay ay disposition gis nañ fi 3F 3 euh, yooyu yëpp ay conditions yu ñu teg la gis nañ fi tey ay partenariat yu mu signé pour euh, emploi mën a am tey ñu mel ne Auchan gis nañ ko fi ñëw ne installé Dakar donte koñ ba mu nekk sax lu boni bor jël na fa cinq personnes mais suñu demee ba tey confiance boobu nit ñu amatuñ ko ci ñoom pour liñ xamul woon Sénégal muy xeex ak manifestation ak yàqaale li jàmbur gëm naa ne pour état employé day du du créer man état du mën a créer emploi parce que état li mu mën a mooy jiili am si confiance état président de la république mu ñëw investir Sénégal jël doomu Sénégal ñu nekk fi te loolu gis nañu commencé naa ñoo yàqu lii xale yi xewal léegi séquencé yàq loolu nag tant que ñu ngi koy def rupture day gën a am ci côté eh, employé yi parce que euh, nag avant employé nag confiance moo koy jiitu te nag jii li dëkk boo amul confiance doo fi investir sa xaalis ñooñu nag fi leen di lance appel ñu delloo si waat seen xel gën a toog xam ne tukki yokkul war sa ay ku sori say mbokk mën a dajale xam ne dem ci gaal gi risque la te njariñ njariñ njariñ njariñ loo fekkee aussi di Eh, ñaar rek may mi nangu di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla yànkal ko fi eh, mu wér ba ni mu ma yëgal Serigne Touba mu def ko di ñaanal commission féminine bu conseil communal de la jeunesse eh, jeunesse féminine Benno Bokk Yaakaar di ñaanal ministre de la femme muy Adjaratou Fatou Gueye Diané président bi ko li ko président Macky Sall dénk mu gën cee gis lu kawe njortam vraiment kontaan naa merci beaucoup. jërëjëf euh, Bintu Diop mbokki loolu mu nekkoon seen émission euh, pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck ci rajo réew mi FM moom Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi euh, Bintu Diop mu jiite jigéen ñi bokk APR ci ak coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Touba mbokki ñu leen di jox di daje samedi bi di ñëw ngeen jëf.